loolu mooy saa suñu yëkkatee dara rek ñoom lu ñuy def ba saboté ko ci loolu la ñuy nekk waaye buñ ko saboté mu jàll xam leen ni yéen lañu ñu saboté yéen askan wi waaye du ñun la ñu dañoo bëgg 31 décembre lañ leen ci laaj bariwul diggante 20 ak 30 minutes mooy bu ñeen fukki ñaar fukki waxtu doore tàmbalee muy 20 ba vingt heure vingt vingt heure trente bëriwul jafewul dañu bëgg fu nit toll ci senegal wala ci àdduna sax muy riir ndax biñ ko defee le vingt deux juin tv cinq France 24 BBC CNN ba Al Jazeera ñëpp ko wane woon Sénégal il faut ñu woon àdduna bi ni ñun am nañu ñu naqari ci ni ñu yore réew mi léeg-léeg damay sama tournée yi may def damay dem ci àll bi ci village yi jigéen ñi dañuy génn ak seen cin di ma teeru ma xam ni kon concert casserole yeggoon na fu ñu ko xalaatul woon peut-être grande ville yi lañ doon gis dañoo bëgg yow chauffeuru taxi bi yow borom camion bi yow borom jakarta bi yow chauffeur particulier bi bu la fekkee ci circulation bi à partir de vingt heures le vingt deux juin gisoon nañu sax chauffeur taxi boo xam ne casserole yi la jël takk ko ci oto bi di daw ci ni dañoo bëgg bu vingt heures jotee fu nit toll ci àdduna xam ni askan wi kontaanul ci Macky Sall ak njabootam ci ni ñu yore réew mi ci jamono joo xam ne askan bi sonn na loolu bariwut yow mi nekk sa biir kër ak âge boo munti am ak ngay góor wala jigéen le 31 décembre Sénégal war na riir ba suuf si sax di yëngatu parce que Macky Sall loolu rek la xam langage boobu ñuy fàttali nag ñun plan d'action la ñu am ñun Yewwi Askan dañu woote ci ñaar bu ci njëkk mooy 31 décembre concert de casserole ñaareel bi mooy le 6 janvier rassemblement waaye lii dafa weesu mbirum parti politique wala mbirum société civile wala mbirum daayira wala mbirum lii ak lële moo tax ñu ne comme waa société civile bi ñoom woote nañu ñoomit la le 30 ñuy woo sénégalais bu ne bu ko mënee te fekkee ko te tal ko bu ci tàyyi na jóg dem place de l'obélisque dooleel société civile également ci woote bii mu woote lii de du lu bëri lu ñu laaj askan wi te nag askan mooy changé réewam kenn du ko changer ci place am kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mu yokk ñu sutura yokk jàmm ci réew mi may ñu Macky Sall ak ñi mu àndal nga xam ne nitu fitna lañu te fitna bi li leen ciy dooleel mooy ni ñuy utiliser police gendarmerie ak justice yàlla nañu yàlla tàqaleeg ñoom ci jàmm yàlla nañu yàlla tàqaleeg ñoom ci jàmm yéene yi nga xam ne yéene yu bon lañu am ko ci réew mi am ko nit yàlla na ko yàlla wëlbati si ñoom di dellu ñaanal nag suñu kilifa Serigne Salih Mbacké nga xam ne taxawaayam ak liggéeyam ci Sénégal ñépp xam nañ ko tey yàlla def muy anniversaire bi bi muy wàcc liggéey yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko yokk leeram fi mu tëdd taas ñu ci barkeem limu mu liggéey ak li mu mus a ñaan te yàlla nangu ko yàlla ko yàlla tasaare ci senegal tasaare ko ci àdduna di nuyu sëriñ saali Cheikh Salif Mbacké di sama sëriñ di sama baay yor xilaafa gi tey di ñaan yàlla yàlla may ko wér-gu-yaram may ko gudd fan bàyyi ko fi lu yàgg-yàgg liggéey bu rëy bi muy def te ñëpp teg ci bëtam diggante daara ji ak tool yi ak tabax ay jàkka yàlla na ko yàlla yokk ci liguey bobu ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum. Voilà, je vous remercie à tous et voilà, on en a fini. Merci beaucoup.